waaw Seydina xam naa ko bu baax a baax parce ñoo màggandoo ñoo jëndoo ñoo defandoo li ma xam si moom mooy baax xol bu xol bu rafet la yor di jàppale doomu aadama yi loolu daal xam naa ko si moom te nitu nitu nit ñi la quoi franchement. essai bi tamit moom tamit def na si loxoom nekkoon na fi dem benn année ñaari ñaari année je nekkoon na fi président. amul lu fi deful jënd façon jour bu ne jour bu ne jënd na fi indi ko fi ba pare di jël di jël am amam diko ko si def franchement di woné amuram te film yi jaral na lu né bu ko yorul woon sax day dem li li jënd ko si copain mi wala dem si président wax équipe am ni président jàppale ko mu ñëw def ci équipe bi. wa waaw Boubacar xam naa ko bu baaxa baaxa baax mhm. euh wax dëgg yalla ñoo magando moma mag ci ay at nak tuti mais ñoo màggandoo fii ci biir fii micc mu nekk nit ku baax nit ku baax ku nga xam ni du caag yu ni dañ maa tiimale micro may wax lu nga xam ni neexul yàlla ku ma xam moom xam ma ci dëgg ak wax lu neex yàlla sunu borom nit ku baax la nit la ku nga xam tamit du fàtte démb parce que bi mu nekkee député man xaw ma ni sax député la wax dëgg yàlla du ma romb te wàccul ñëw ba atelier bii nga taxaw ni fekk ma fi nuyu ma soxla bu doomu aadama am suba ba ngoon mi ngi ci quartier bi ku ko seedeel leneen lu dul loolu naa fekk nga wax dëgg neex yàlla ku mu dégg ne am nga problème police nga am dëj nga am ngénte nga am lépp mu ngi fi nekkul député rek nit ñi gisatuñ ko bon lii may dégg nag ci moom yàlla rek moom moo xam te comme ni ma ko waxee léegi du ma wax lu ma wóorul mais wax dëgg neex yàlla xamewu ma ko ko gisuma ko tamit ci moom ndax nit ki am na si lu muy nekk dafa war a feeñ ci moom gisuma ko ci moom ñi mu doon àndalit démb ñoom lay àndal ba tey bàyyiwu leen te kenn ku si fii lay toog di naan ataaya fa mu daan toog soo ko soxlaa fa nga koy fekk wax dëgg yàlla waaw. ah sant yàlla bu baax parce que suñu grand baax la de wax dëgg fa ne yàlla grand baax la ci quartier bi deful loo xam ni peut-être pour man si lu ma mën a jàpp loo xam ne day am inconvénient quoi dem gauche wala droite ndogal ba yàlla tudd si moom la su fekkee tamit moom moo def mais amul loo xamante ni ci koñ bi peut-être do du ñàkk nit bu am baatu ginnaaw quoi. mais man gisuma loo xamante ni def nañu ko loo xamante ni war nañ ko mën a ñun téel si koñ bi loo xam ne day metti quoi bañ koy waxal lu ñaaw ñun ñu ngi si ginnaawam gauche droite man daal parce que sama mag la quoi loolu laa mën a wax waaw moo ñu mag def na lépp ci quartier bi lu nit def ci sa quartier bi def na ko fii la foowee fii la suñu grand la football na fi nawetaan def na fi lépp moo yoroon ASC bi moo def lépp nekk na fi président ASC fi mu ay ati at def na lépp daal ci ASC bi waaw. waaw non xam nga nit ñi moom kenn ku nekk dañuy wax rek li ñuy wax lu leen neex la euh, Seydina Fall nekk na fi ci koñ quartier bi lu xam ni nit dina ko def ci quartier moom def na ko ci quartier bi. sama papa moo nekkoon papam da daan diisoo mu guddeeg bëccëg li ñuy wax ay waxu simb nekkul simb kat bu nga xam ne da ngay wër di simb pour am xaalis ASC bi la doon dundal te nekkul woon simb kat mais moom bokkoon na ci culturel culturelu ASC bi lu nga xam ni war na dundal quartier rek Seydina Fall def na ko football na fi fii mit ñëpp xam ne mën na li muy def mën na football football na golf nord gii ñu jege nekk na ci dispensaire bi di fi jaay ay ticket lépp kon daan dooleem la pour yóbbu këram doomu aadama la bu nga xam ni wax dëgg neex yàlla man bi ma déggee lii si moom waxtu ndekki la mënumaa ndekki ndax am lu ma metti parce que nit ku baax la nit ku baax la nit ku gore la it soo ko gisee li ngay njëkk li muy njëkk def mooy retaan nit ñu nag lu nekk la ñuy wax simbukatu gaynde man mosuma koo gis mu simb gaynde pour wut xaalis de mais fuural na ci quartier bi pour ASC bi am xaalis lu nga xam ni ba mu yorul dërëmit ñafe na ko pour ASC bi am xaalis ba mu nekkee député def na ay millions ci ASC te ci ñàkk boppam non man musuma xaa gis moom mu simb personnellement man personnellement wax dëgg yàlla. Euh, mom ASC bi lu mu ci yoroon nag bëri na dana def simb même set setal yi moo daan jiite dispensaire bi bu ñu daan def ay affaire même gardiennage yi lépp def na ko moom daal lu góor yàlla di def. comme ni gars di waxee du ñàkk nag liggéey bi ngay nekk mooy tax nga xam ne kenn dootu la gis yenn yi bëri quoi mais lépp lu ñu doon def moom ci quartier bi moom lépp da koy def ñi ma mag sax dañ koy kon loolu dama ko fay fekk quoi mu nekk suñu grand bu baax baax. Euh, équipe bu nekk nag moom daan daan boo booy boo waree am match daan na yëkkati lim man jàppale la équipe bu nekk moom danaan yëkkati fii muy déggoo ñëpp fi mi golf noonu yëpp. waaw que yooyu yëpp gars yi na daan yooyu na leeruma mais daan naa dégg dem dañuy dem këram def délégation dem fa mu ja jox ko soutien mu jàppale la franchement.